asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen sama mbokk senegal yi maa ngi leen di ziar di leen nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen wax ne li fi xew nii neexul kenn waaye dama leen di ñaan ngir jëmmi yàlla ngeen ànd ak dal ndax lu dul jeex amul lu dul jeex amul waaye tey lii ñu jël yépp di ko yàq dafa suñu ay doomu réew ñoo ci liggéey di ci teral seen ay waajur di ci teral képp ku yaakaar ci ñoom. tey buñ ko yàqee ñun ñoo ci nar a sonn ñun sénégalais yi ñoo ci nar a sonnaan ndax impôts dina ñëw factures yi dina ñëw te yëpp ñu ko teg pour ñun ñu fay ko ma leen di ñaan ngeen ànd ak dal ngir jëm yàlla yal nañu suñu borom defal jàmm yal suñu borom def ci ndox bu sedd guy ba ñëpp ànd ak ak dal ñu delluwaat ci jàmm ci barke na Mohamed.